Assalamualaikum mbokki patriote yaa ngi ñuy siyaar ñu ci déggee yëpp di ñaanal ñu ko jàmm maa ngi va je vais un peu profiter pour féliciter comme ni ma ko waxee ñu nekk terrain bi yëpp Cheikh Bara voilà di sant Niass Proche Thiam voilà Aji Ndaw et tout monde voilà liggéey bi yombul mais li jot bëriwul tey malheureusement waa APR laa bokkal même hôtel

ñu sax bàyyi ci otel ñu bàyyi ci kaw dañu leen woon wàcc suuf ñu bàyyi ci kaw ñu ñuy toog ci suuf ñu tiim voilà peut être c' était une blague mais bon le manque de savoir vivre moom vraiment c' est c' est flagrant benn savoir vivre nekk di wax di yuuxu koo xam ne da nga ko bokk ak ay ñu vraiment voilà bon li ma doon wax rek mooy dama seetaan les les commentaires par rapport ak Bassirou Diomaye Faye discours beeg tout ça mais yaakaar naa Euh, li may wax gars yi dem leen jëli seen carte yi moo gën gis nga euh, Bassirou Diomaye Faye man yaakaar naa nit ñi ma xam bokk na nit ñi ci gën a strict nit ñi nga xam ni ñoo gën a respecté mooy règle gis nga Diomaye gis nga mbirum euh, yoon mbirum lu lu lu mbirum lu jub amu ci xarit amu ci amu ci mbokk. Je vais vous expliquer juste quelque chose benn anecdote am man ak moom. Je comprendre nan la est nan lay yoré Sénégal jomay koy produit yu bon au delà de son coach man lay wo na ma jim jëndal ma voilà wala indil ma li jaay ma un jour ça fait pas longtemps je crois que juste avant ñu koy euh, ñu il m'a commandé des produits ma indil koko produit yi ma ko commandé bon ma suis koko impôt domaine comme man euh, direction nationale des impôts man suma ma ñëwee damay yaaxam bi ma ñëw bàyyil ko ko ci eh, ci réception bi manam gendarme nekk ci bu ne ma ko su jomay ñëwee waccé nga jox ko parce que dama yaxam te mënuma yegg bi mu ñëwé gis produit yi benn de benn si produit yi date bi dafa xaw effacé wu woo ma ne ma coach ah produit yi ma jox benn bi dat bi dafa effacé wu ma ko non benn lettre la mo ci effacé wu je les je crois que je les remarqué mais lolu bon yo xam nga mu ne ma non non je veux que date bi ma xam date bi exactement ma ne mais yow kii du doma wala da ngay xalaat ni man da la jaay lo xam dafa ci man bañ naa ko ba su produit nek nekk best bi fo nga xam ne six mois avant sax dama koy génne mu ne ma non non man je marche pas comme ça c'est pour mon confort personnel et général parce que du pour man kese mais ëllëg mun nga jaay lo xam do ci def attention mu nek lu ci mu am ñeneen ni mu lor su dee man la grave je ok, qu'est-ce qu'on va faire Je reprends le produit. Moi, non, non, j'ai confiance à toi, mais tu as d'autres produits comme ça. Je dis, mon motif, les vas dem fi ko jëlé nga xam fi nga xam place bu mu nekk sa place nga filmer ma yépp seen date nga tourner comme ma xool si ça concorde avec ça manako ne ko ok mënuma nga jox ma code barre imaginez benn produit mu def si attention Bob. dama mujj jël filmé ndoo produit rangale ko yëpp mu gis date bi c'est identique te boobu bi muy ñëw des fois comme day am frottement conteneur day tàng day am frottement moo koy effacé déjà ci parce que affaire émail la ko voilà kon koo koy Bassirou Diomaye noonu la mel gis nga mbirum euh, gestion dëkk ak mbirum yor dëkk ay nii lay waxee nee lay wax kon su dee laal moom loolu kenn du ma déglu wax man sama baat dafa bizarre man sama baat dafa sewru man am na ñoo xam sax dañ may woo naa ma soxna si <laughs> waaw woo ma jum téléphone ma ne ko yaa jum mu naa mu demee xaw sax menace naan ci ab yambar la man baatu yambar laa yor ba Bassirou Diomaye baat boobu la en ce qui concerne la gestion wala jubal wala yor réew amul kenn koo xam ne Sénégal dajaleel ñëpp dajaleel ñëpp sa ñëpp Sénégal amul kenn koo xam ni moo dàq yor réew Bassirou te wallaahi Bassirou Diomaye bis bu doonee président bi ngeen ko xam ñun nag waxuñu pour ay Bassirou Diomaye man yaakaar naa Diomaye su doonee président mun nañ bañ a gisantee ci man ça m'intéresse pas lenn daal xam naa naa ko def fépp fu ma demoon naa fa delluwaat xool ndax ñii li tax ñu fal leen def nañ ko ndax fàttewuñ dara di leen ko fàttal loolu moom sama rôle lay doon mais incha allah suma liggéey laay continuer mais dama leen wax leen su fekkee gestion dëkk ak jub ak jubal ak saytu ak wóor ak jël lépp loo xam ne si lu nit bokk la amul yaay amul papa amul xarit Bassirou Diomaye incha allah yàlla suñu borom duñ ko def président gars yi ñuy jaar ñu ci bëggee ñoom ba